Pape Demba Bitèye euh, Pape de waaw Pape Mademba Bitèye euh, dañuy juum à l'état civil c'est Pape Pape Mademba Bitèye hmm. donc dañoo juum <laughs> alors Kaolack da ko perte ci élection yi mujj. non non locales yi. non je parle de... dañu gagné. non je parle local euh, perte ngeen conseil départemental bi bon contesté woon ngeen je reviens pas là-dessus mais après euh, les résultats ont été confirmés euh, donc yoru leen conseil départemental yoru leen li nga xam ne moom mooy euh, commune bi Serigne Mboup c'est lui qui règne en maître à à, à Kaolack euh, législative yi vous avez fait une petite remontada euh, ñu ñoom mais actuellement dafa amoon configuration bu amoon Kaolack Euh, d'ailleurs bi ngeen di dem local yow ak Rahma yow nga nekk conseil départemental moom mu nekk commune euh, voilà le courant passé euh, le courant ne passe plus bu baax yow ak ak ak Rahma et puis yow yaa ngi commencé di détaché wu di imposer wu di créer sa sa sa sa groupe ah yaa ngi approché ñeneen ñoo xam ne tamit c'est des adversaires à Rahma ku mel ni Ousmane euh, Noël Dieng ou l'ancien président euh, du conseil départemental Rahma nekk ci côté bi Mariama Sarr nekk ci côté bële ci élection locale yi président ji mën na leen dajale ba ñoom la tendance à Mariama Sall et Diène Farba euh, nangu woon l'investiture de Rahma mais dafa mel ni dafa am jégeer ci suuf dans ces conditions là est-ce que mën ngeen gagner est-ce que vous pouvez faire gagner votre candidat euh, Bokk Yaakaar à à parce que vous êtes très divisé. mais mun noonu dinaa la waxal nag Kaolack am na benn spécificité mooy quel que soit problème bu am entre les responsables bu président taxawee. wala intérêt président taxaw ñëpp dañuy aligné ñëw parce que ku ci nekk ah ku ci nekk président nga gëm te pare nga def les sacrifices yu yu yu yu nécessaires pour que président am satisfaction xam nga bu ma fa ñëwee comme man damay soog a ñëw dama leen ne constat bu ma defoon mooy que ni dama leen ne. la politique là ne peut unir qu'en divisant xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku Bachelard lu ñu doon wax la politique de Kaolack ne peut unir qu'en divisant xoolal chaque fois bu enjeu national taxawee toujours dañuy gagné te te xam nga loolu lan mooy intérêt bi intérêt bi mooy lan mooy aujourd'hui am na ñoo xam ne ah ma préciser au passage sama diggante digganteeg rahmat dara nekku ci ah. Hmm. xaw ma foo déggee loolu commencé nga ber sa daara de. non non xaw ma foo déggee loolu <laughs> mais sama digganteeg rahmat dara nekku ci ma leeral ko kaw la ko waaye ak ñuy dégg loolu moom dama koy leeral. mu leer non non bi tey au début. au début bon yaa ngi doon dugg ci politique bi ça balbutier un peu eh, nga kii nga nga gën a jege Rahma mais tey yaa ngi détaché wu de Rahma yaa ngi ber sa yoon yaa ngi wut de nouveaux alliés c'est alliés yu ngay wax et c'est l'occasion pour moi me remercier ko mm. c'est Baba Ndiaye l'ancien président du conseil, conseil départemental. départemental un grand ah. cadre mm. nit ku baax xam nga lu tax ma wax ko li mu accepté dafa yombul Maïmouna ah dafa ñëw président mu nekk le le président du conseil départemental élection yi ñëw président ne ko on on choisit le DG de Sénélec mu nangu non seulement mu nangu ko mais mu taxaw jàppale ma d'une manière boo xam ne mënuma la wax sax pratiquement sama campagne législative yi moom moo moom moo moom moo moom moo doxal yëpp ak ak ak ak départemental depuis boobu chaque fois fu nga xamante ne nii wax nañ ne lii lu jëm ci wàllu président la mu taxaw c'est-à-dire Kaolack Kaolack est une ville politique yoo xam nga boo xoolee l'histoire politique du Sénégal Kaolack à toujours joué les rôles gis nga culture politique boobu nag ba léegi moo fa nekk mais dama la bëgg rassurer wax nit ñi ne gis nga quelque que soit lu si munti am te xaaral ba si présidentielle yi nii ñu jëm di nga gis ne tout le monde va a mobiliser derrière le candidat Amadou Ba pour falaat ko bu soobee yàlla